bay fal nga ko café da mel ni café Touba Ba la gënal de waaw bi dëgër na rek dëgër na gis nga de pour nelaw la rek bi de mhm. gis na de yi mbas mii ñu nan coronavirus ñu gën koo xam ci covid 19 lu am la mu ngi suñu depuis le 2 mars ñu ñëwoon tey waxtaan ak yéen ci li ngeen xam ni mooy cas communautaire tey su ngeen gisee mise en sen bi ñu fi def cinq da koy illustrer da koy wane jàngale la pour wane lan mooy cas communautaire cas communautaire mooy koo xamante ni jël na doomu jàngoro bi ñu wàll ko ko te kaka wàll xamu ko te feebar bi mu ngi law doomu jàngoro bi mu ngi law ci biir askan bi ñu ngi ciy wàllante te ki kay wàll doo ko xam loolu nag liy particularité ñoom lañ leen war noonu feebar bi mën nga kaa yor dund ak moom de benn fan ba 14 jours doo présenté benn mandarga bi wane ni feebar bi yaa ngi ak moom tey gis ngeen ba may dugg si dama fekk ki nga xam ni mooy sama naataangoo ba may liggéeyandool mu sëqat def ko si loxo yi nii la def sëqat te loolu c'est pas recommandé mu jël ba mu sëqatee ba pare mu teg loxoom si clavier bi si suuri bi man bi ma ñëwee xaw ma ni dafa sëqat te xaw ma tamit ndax moom am na doomu jàngoro bi ndax manifesté wu ko si kanamam laal naa ko cla souris bi jëlaat naa sama kafe balaa ma naan sama kafe gis ngeen ni ma laalee sama kanam loolu yëpp c'est pas recommandé tant laal nga sa kafe li gënoon a jekk mooy nga raxas sa loxo ak gel balaa ngaa laalaat kafe bi ndax bi ma laalee clavier bi tey njortu ma ni loolu am na xaw ma ni nit ki yor na ko moom it xamul ni am na doomu jàngoro bi ndax xamul fan la ko mën a jëlee tey ñëw naa partagé naa kaasu kafe ak samay naataangoo yi may liggéeyandoon ñoom ñëpp nan nañ ko non seulement laal naa kaas bi ba pare nan naa si jël naa germe bi transmettre ko transféré ko si biir kaas bi ñoom wàll nan nañ ko ñoom it ingéré nañ gel germe bi ñi keneen ki aussi def na la même chose te ñoom fi ñu jógee ak man fi ma jógee bokkul te noonu lay lawee si askan bi ku si nekk mën nga jël germe bi yóbbu ko sa secteur yaa ngi exposé sa bopp yaa ngi exposé sa waa kër yaa ngi exposé sa waa koñ te yaa ngi lawal doomu jàngoro bi loolu mooy danger bi nga xam ne moo am ci cas communautaire nga lawaay li gën mooy ñuy toog suñu kër parce que soo toogee sa kër di nga muccal sa bopp muccal sa waa kër ci doomu jàngoro bi ndax xamoo foo koy jëli jee walla sooy génn nga jël masque su dee mën nga am masque nga def ko sa kanam bu ko defee yow même boo yoree doomu jàngoro bi mënoo ko lawal parce que doo sëqat ba mu dem beneen bi nga yor sa gel saa yoo lal laal yu melni sudé amna nga lal sa gel comme que raxasul mono di def ci bi wala bu féké da ngay saxat comme niñ ko expliquer nga def mouchoir so paré nga sànni ko dal daal mu ñu si muccal ne communautaire yi amna na loloy tax affaire bi gëna law té liñuy ñaan di ñaan yalla di ñaan askan bi moy ñu tok fexé ba éviter bi law ba cas yu bari ne mi bitim rew mu am fi loolu ni ñu ko mën a dimbali nag mooy ñu respecté consignes yi gest barrières yi nga xam ni wax nañ ko ñu respecté ko te mën a toog suñu kër loolu laa amoon lu may wax tey lii laa doon expliqué ci séquence bi nga xam ni def nañ ko maa ngi jégalu ci kàddu yi di leen ñaanal encore une fois ñu maytu maytu rek moo ñu ci mën a dimbali. salaamaaleykum maa ngi ñëw di rejoindre sama naataango bi lu mu wax. effectivement man ñewna naa sëqat naa ndax yoré naa jàngoro bi xawma ndax yoruma jàngoro bi sëqat naa te protégé wu ma parce que sëqatuma ci mouchoir damaa ñëw sëqat ak sama sama loxo paré laal sama souri continuer di liggéey mom tamit bi mu ñëwee laal na souri bi te xamul né man am ko mom man tamit xawma né ne am tamit ñu leen di ñaan bés bu ngeen bu ngeen ci ngeen gaddu seen mouchoir ngeen sëqat ci bu ngeen paré ngeen lem ba mu jekk ngeen dugal ci mbalit ngeen santi di len wax tamit ne cas communautaire mu ngi ci dëkk bi di law continue di law ken xamul kan moko am fim ton ni ken kenn munta ci ka communautaire ndax te lutax tay ji xamoo kan moko am man nga tok sa bureau nit joge ci kërëm ñew di liggéey si fekk na contacté na maladie bi xamu si dara ñew tok ak yow waxtaan waxtaan ak yow di ndo ak yow nga après bu ngeen paré ku nekk ngeen ku nekk ñibbi kërëm def ken xamul si sa morom ndax am ko wala amuko, ñu leen di ñaax nak ngay respecter mesure de prévention yi kër docteur yi di digle maanaam nga sëqat ci mouchoir boo paree nga jël nga sànni di raxas say loxo foo toll soo génnee boo ñibbisee nga raxas sa loxo yi ba mu set beneen aussi beneen problème aussi am na nit yi dañuy fàtte lu am solo lu am solo mooy wàllum portable yi parce que mën nga yore sa portable dem raxas sa loxo fekk laal nga sa portable am na germe nga ñëw nga teg sa portable boo tegee sa portable nga dem raxa sa loxoy ñew la la sa portable lolu amul ben njëriñ ñu leen di ñaan de leen de leen nettoyer sen portable yi fu ngeen toll fu ngeen rax gennete ba ñew ba rax sen loxoy ba mu set de leen fonk sen portable yi tamit de leen si baye xel lu bëri lu bëri bëri bëri parce que amna ci solo lu bax amna ci solo ben bi aussi tamit moy ñu leen di ñaax ngeen tok sen kër yi képp koo xamante amul soxla ci biti ñu ngi lay ñaax nga tok sa bir kër nga bañ a génn dem fenn nga lor aar sa bopp aar sa askan aar sa njaboot. mbas bi ñuy wax coronavirus. lu am la. lu ñu siy mën a dimbali mooy. toog leen seen kër. ñu toog suñuy kër. restez chez vous. ñu dimbali waa kër docteur. force Covid 19 jàmm gën